salaamaaleykum mbokku internet AG Pro TV ñu ngi ñëwaat rek ci seen rubrique difficulté rencontrée tey yàlla def ñu nekk fi nga xamante nii moom mooy euh, fas Ngom nekk ci région de Saint-Louis tey nag ñu ñëw fi nekk ci daara joo xamante ni wax dëgg yàlla fekk fi sëriñu daara fas yéene waxtaan ak moom xool yan difficulté lay rencontré fi nga xamante ni moom mooy ci ci dëkk bi yan jafe-jafe la fi am nekkin bi dundin bi ah naka la naka la demee kon su ko defee rek dañuy ànd doxantu ndànk ma fekk ko fi mu toog. su ko defee ñu laaj ko ay question rek ñu xool yan difficulté la am yan jafe-jafe lay rencontrer ci ci li nga xamante si moom mooy métier bi nga xamante si mu ngi ciy nekk di jàngal yi parce que mu ngeen xoolee dëkk bi boo xoolee lii lépp àll métti na dëkkuwaay bi boo fi duggee sax xanaa yaram day daw su ko defee rek dañuy ànd dem ci moom toog ak moom waxtaan ak moom laaj ko ay question rek mu xamal ñu li ko métti ak li nga xamante si moom lay sàkku ci nit ñi ngir ñu mën ko ci dimbali ak yu ni mel kon su ko defee rek ñu daal di dem ñu waxtaan ak moom acca sëñ bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di fay. mën nañoo xam tur bi ak sant bi. waaw man Serigne Sow laa tudd. sëriñ Sow. Mhm. Euh, waaw ñu gis nii euh, fi nga xamante si moom mooy fas ngoom fi nga dëkk nga yor fi daara dundin ci dundin bi nga xamante si moom ngeen nekk ci daara yi ndax mën nga ma ci indi ay leeral neex na wala naqari na yan difficulté ngeen ci ngeen ciy jànkonteel. waa gannaaw bi ñu sant yàlla julli sant bi mun na la si wax li nga xam ni moom la ñuy di dund adduna nag soo fi dundee daa dund bu neex daa dund bu na na naqadi yàlla dafa dogal ni daara ji ñun yàlla def ñu nattoo bi ñu ganee si aduna daara la ñu xam ndax su suñu waajur bu góor moo nu ji jàngal jàngiwunu fenn moom moo nu ji jàngal. da nga doon génn sa néeg yaay fekk ci mbaar mi nga jàng yàlla dogal fa la ñu jànge ba yaakaar nañu ni fànn yëpp ñu jàng nañ ko fa mu jël daara mu ji jox nu ñun amel ko daaram ba mu dikk mag kenn ku ne mu génnee la daara mu jox nu ñu digal nañ ñëw biir faas yàlla dogal bi nu ñëwee faas am nañ fi ñaari daara comme ni ngeen gisee daara ji noonu nii rek la la ameel ndimbal biñ ci bëgg daara la ñu xam benn képp ku nuy dimbali nañu dimbali nu ñu dundee ba ji jàngale daara ndax moom la ñu fekk nit li li nga fekk moom ngay bëgg te bëgg nañ ko ba mbëggeel bi ji jéggi gën a da dayoo yàlla dogal ndongo yi ngeen fi fekk du ñu ay ni ndongo ay jarbaat la ay doom la ay rakk la ay ñinnu may pour ñu dénk nu ko àdduna ak al mooy lan nit def nuy wóolu ji jox nu doomam mu mu ba melam laa la laaj yàlla def tim ñun tim loxo yi di jotul gannaaw si am-am bi mais pour ñun moom alhamdulilah ndax comme ko ñoo ngi yeew di jàng alxuraan di ko jàngale di julli di jokk mbokk rek pour ñun lépp bu baax na. yéen lépp bu baax na waaye tamit euh, dafa am loo xamante ni euh, euh, bët du yanu waaye xam na lu bopp attan te soo nekkee ci daara ji yor ay xale di nga leen dundal di nga leen jox ñu lekk di nga leen jox ñu naan te loxo jotul di ginnaaw donc loolu dafay doon loo xamante ni lu fay luy métti la donc tey soo doon benn appel. ci li nga xamante si moom mooy ngóor gi donc lan nga leen wax. waa xam nga li nga laaj dafa mel ni laaj nga ko tontu nga ko. loxo ji jotul gannaaw ko ku loxoom jotul gannaaw bu bëgg na di dimbal mais ñun dafa am benn gëm-gëmu bi nga xam ne moom la ñu am pour ñun taalibe de yelwaan walla mu mu bay walla mu sàmm muy liggéey ngir dunde yàlla dogal nag ñun ñu toll si jamono boo xam ni bay amul ñun daara ji du bay ndax ñun xamuñu bay ñun li ñu xam mooy nit de yalwaani bu bëtu trois heures di matin ji jotee dañuy yeewu ji jàngale ba six heures ñu yalwaani ceeb neuf ñu ñëw dugg jàng ba une heure ñu ñu yalwaani añ ba deux heures ñëw ji jeex na guddi gi duñu gën bi ñu nguur gi dalay wax ni dañ leen di dimbali bay leen yi yelwaan nag ba tey ñun gi gisaguñu li gën yi yelwaan bi ndax yi yelwaan bi xale yi daan dem ñu ñu yelwaani ñu dajeek ak nit ku baax mu nekk seen jaadige mu leen di tibbal añu ñu añ ba suur nguur gi bu boo la nee naa la dimbali buñ la indilee te benn saaku ceeb bu ba weer del siwaat déwén doo gis la neen te benn saaku ceeb lu tolloog ay ay deux cent personnes kenn ku ne xam na ni soo ko toggee benn fan ñu ñaari fan la jeex bu boo après buñ la ju joxee benn saaku ceeb di lay publier si adduna bi yëpp ñu def ko téeméeri saaku fekk yàlla xam na ni benn la te deuxième fois bi ñi nga xam ni ñoom ñoom la nguur gi nekk seen jaatige ñoo ngi leen di gis ñoo ngi mu manifester ñoom enseignant yeeg santé yeeg ñoom seen ñun nag alhamdulilah ah àggaguñu foofu te nit bu fekkee ni yëkkati nga dara nga bëgg yenu attanoo ko soo ko yennee ko ni yaa ngi di dolli xel nanguwul lool bon ñun li li tax seentu wunu ni dimbalu nguur dinañu gis ñi nguur di liggéeyanteel bis bu ne boo taalee rajo daa dégg ñoo ngi ñaxtu ñun bu ñu nguur di dimbali nañu dimbali si dundin bi nga xam ni moom la la ñu xam xale yi dem yalwaani am ay njaatige ñu lekk ñu ñëw ñu sangu am nañu ay teen teen bi tam ay nit ñoonu ko may ay ay ay ay waayu yàlla bëgg nañu ni dimbal nag ndax xale yi war nañu am ay néeg war nañu am ay duus war nañu am ay leneen dëkkin yi moom nga gis nga ko amul courant amul ndox amul amul amul amul amul amul amul euh, vraiment man sama yaram sax day daw ci su ma gisee maanaam dëkkuwaay bi ak xale yi tout tànk yi ndax lu ci nekk rek da nga koy natt ci bu doon yow la kon métti na e, am loo xam ne tamit dafay nekk muy mbas mi di Covid 19 di coronavirus tënk lu baree baree bari ñu gis ni bon état débloqué na benn xaalis somme bon jëmale ko ci wàllu ci côté yëpp secteur yëpp est-ce que bon daara yi ñoom gis nañ ci seen bopp. waa ñun de yàlla def na daara yi gis nañu gisuñu. ndax nit moom day wax dëgg ceeb bi Mansour Faye doon joxe chef de village dëkk bi jox nañu si am nañ si ñaari saaku ak li muy àndal mais gis nga xale yi ñaari daara la ëpp na cent ndax ñaari saaku ceeb bu bu bu ko cent personne doon lekk ñaata lay doon. koo lekk sax ci ñaari fan ba ñett. waaye léegi nag ay nit ñoo dundal ndax nee naa la duñu ay ay bi ay jarbaat ay doom ay nit ñoo xam ne di leen fi dénkaane ba yemal xeyam ngir ngir alxuraan bi moo tax du ngir suñu jëm du ngir suñu am am na du ngir suñu leneen eh, am na ay ñaari weer yoo xam ni métti woon na si ñun lool ndax nguur gi dafa yebal ay homme de loi ay homme de tenue ñu taxaw fii bu xale soo yónnee sa doom ci mbedd bi si si bi biiti bi sax mu mujj jàpp ko ñu andi seen oto ba fii mais waaye yàlla yi yéenu dëkkal kër yi ngay xeeb ñun xeebu nu leen alhamdulilah ñooy tibb seen ay bool andi weeru koor gi ba mu jeex seen ay suukar seen ay ceeb ñuy débrouiller ba fi nga nu fekk tey fekk nga nu fii ñoo ngi jàngale gis nga fii amuñu ay basang amuñu ay chaise bi ngeen ñooy sax amu leen fu ngeen toog te lu lu mu bëtt bëgg nag la laa bar bëgg boo boo boo nu sañoon li ñu nekk taalibe yëpp ñu am fu baax foo xam ne bu bëggaan ñëwee ñu mun ko fa teg ndax yonent bi nee na ku gëm yàlla gëm yamal xiyam day ñëw soo amee gan teeral ko mais bu bu ñu fi ñëwee bu ñu amee gan koo xam ne xamoo daara xamoo luy ndongo daara ñun di ñu xaw a rus soo amee koo xam ne xam na daara nag di ñuy sant yàlla ndax day xam ni lii moom daara noonu la ndimbal bëgg nañ ko bëgg nañ ko gis nga fii ngañ fekk àll la amul clôture xale yi amunu néegu yu doy benn néeg la ñu am amunu mbaar gis gis gis gis soo fi mbaar añ di dund bi nu dundee dañuy yelwaane añ ñoo añ bon bu nguur gi xëyee nii nañu bàyyi yelwaan jour boobu échec day ñëw ak ak ñun bu ñu nee daañu di dimbali seen ndimbal day ñëw gaa mais day fekk ni sunu benn bisu yelwaan moo ñu gënal seen fukki ni dimbal bref dégg nga loolu suñu benn bisu yalwaan moo ñu gën a seen fukki bisu ndimbal euh, mu doon li nga xamante ni moom la ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi wax euh, ñuy lancé rek benn appel jëmale ko ci ngóor gi ñu bàyyi waat xel ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk arrière yi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci village yi ñoo nekk ci àll yi yor daara yi bàyyi sëriñ yi daara yëpp xel ndax wax dëgg yàlla lii comme dawul sa yaram bon man gisuma leneen loo xamante ni dina daw sa yaram vraiment soxla nañ ndimbal nañ leen dimbali nañ leen jàppale lu ñu ci man rek nañ ci def tey suñ fi ñëwoon tabax fi ñeenti nekk wala ñetti nekk wala juróomi nekk xale yi mën cee nekk ñu defal leen collecteur loolu leneen la dafay dafay doon loo xamante ni parce que suñ ko defee defaluñ ko seen bopp ñëpp lañ ko defal ndax xale yi seen i doom lañ seeni i sët lañ seen i jarbaat lañ kon euh, Macky Sall maa ngi lancé benn appel yow ak sa gouvernement ngeen séentuwaat in encore une fois ñi nga xamante si ni ñoom ñooy sëriñu daara yi ñi nga xamante si ñoom ñooy taalibe yi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di jàng alxuraan ji te ñun nag Sénégal lañ dëkk amuñu lu raw alxuraan amuñu lu ko gën kon donc suñu gisee ñoo xam ne dañ cee nekk di ko jàng di ko di ko tarbiyu nañ leen dimbale lépp lu luñ ci man rek ñu def ko ci wax dëgg yàlla appel la boo xamante si ni bon ñu ngi koy lancé ki nga xamante si moom mooy son excellence monsieur Macky Sall nga jàpp ci li nga xamante si moom mooy combat boobu jàppale sëriñu daara yi jàppale taalibe yi euh, looy tàggatoo waa li ñu tàggatoo mooy alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax di dellu di sant yàlla yàlla mi ñu nattoo ñu amee daara daara neex na mais yéex na nit ku yàkkamti mu mënu ko amee ndax xale yi am na buur am na nitu yàlla am na am na ñoom it am nañu ngor goo xam ne koo si jàngal bu ba mu màgg daanaka ñoom ñooy ah, amee daara ji ndax ñun fii li li ngeen di xeeb néegi yi taxaw fii xale yi fi jaaroon ñoom ñooy dajale def fi néeg yi def fi duus lii bon nag ñoo ngi ñaan yàlla ñu yàlla di defal ji jàmm di ñaanal imaamu Muham Muhammadu moom tamit rakk bu baax la bu am yar am ni teggin ak ji jigéenam bi mu àndal di ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def ji jàmm di ñaan sunu feebar bii nuy tiit yàlla mi ko indi mun na ko dindi yàlla na ko dindi comme ni mu dindee woon feebar yonti yàlla ayuba yéen ñi di jóge déplacé ñëw ba fii yàlla yàlla dimbal leen seen bi yàlla ko yàlla yokk ba mu àgg ci àdduna bi yéen xam leen ngeen bëgg seen pas-pas seen bëgg-bëgg seen mébét si kii bi yan leen koy yàlla may may bu booleem julli salaamaaleykum rahmatullah jërëjëf jërëjëf oustaz ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax kon su ko defee rek dañuy daal di jug rek daal di àgg doxantuwaat ci biir xoolaat ñeneen xool yenn difficulté ñoom tamit moom la ñuy rencontré kon su ko defee ñu daal dem jërëjëf Mm, kon su ko defee mbokk yi ñu ngi fii sunu kër benn maam sunu yaay sunu maam ah, ñu bëgg a waxtaan ak moom rek xam yeen jafe-jafe la ñuy la ñuy jànkonteel yaa maam booy ñu ngi lay nuyu. Mm, waaw ñaa ngi leen di nuyu yéen itam. tur beeg sant bi. Mm, Sow laa sant. tur bi noonu Dieynaba Sow. Dieynaba Sow. waaw. ñu ñëw fi nga xamante si moom mooy Fass Ngom ñu bëgg a xam seen yeen jafe-jafe ngeen di ngeen di jànkonteel ci dëkk bi ndax gis nañ dëkk bi ni mu bindoo ñu bëggoon a xam yeen jafe-jafe ngeen ci am. Mm-hmm. jafe-jafe bi. amuñu courant amuñu ndox ay teer ak la ñuy naan ak kë am nañu jafe-jafe waaw amuñu dara waaw amuñu dara daal wax dëgg yàlla. fii amul robinet amul dara. déedéet amuñu dara dara la ñu amul waaw am nañu jafe-jafe daal. tey lan nga bëgg boo doon wax ni pour nguur gi dimbali leen lan nga bëgg ñu ñu defal leen ko. ah bu nu defaree ay robinet wala defal nu ay courant amuñu courant amuñu dara. dara leen amul. dundin gi fi yomb na wala wala dafa métti. yombul dund bi yombul ñun amunu dara dund bi yombul. ndimbal yi nga xamante si ni nguur gi doon na ko joxe ci jamonoy feebar bi nga xamante ni moom mooy coronavirus bi est-ce que ndimbal loolu agsi na fii. déedéet si fi de agsi fii ñun de gisuñu ko agsi fii ñun amunu dara waaw. daal yéen bëgg ngeen ñu ñu ñu defal leen ndimbal ñu jox leen ndimbal bu baax a baax. nee na nanu jox ndimbal ndax ñun amunu dara. foobar lan daal amul dara waaw amul kon mbokk yi yéen a ko déggandoo dégg nga li ñu sunu maam ji wax ngi daw na yaram ah dégg nga dindun bi métti na ah, dara amu fi ndox amu fi courant amu fi ci ay teen la ñuy nekk teen yoo xamante ni xëy na sax ni mu war a demee demewul noonu ah kon ñuy sàkkuwaat rek encore une fois hmm, monsieur le président de la république nga jàpp ci rek teg ci loxo xam ni njaboot gi ñëpp say njaboot lan yow yaa leen yilif waaw ñun ñëpp say say say ndongalan mën nañ ko waxee noonu ko yow yaa ñuy dimbali rek. xëy na lépp mënul nekk waaye tamit ñu jéem rek waaw ñu ngi sàkku bu baax a baax a baax rek état bi jàppale ñu léegi looy tàggatoo. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant waaw def ngeen lu rafet lu baax waaw ma leen di wax rek waaw li ma la wax rek mooy noonu waaw amuñu dara daal waaw. jërëjëf kon su ko defee rek dañuy daal di doxant rek dugg xool xool beneen bërëb xool lu mu fay jël. borom kër gi mu nga fee mu ngi fii ci teen bi waaw. loolu rek laa leen doon wax waaw. kon dégg ngeen ko su ko defee rek ñu doxantu xool ñeneen xool naka la ñuy doxee. ok ba tey ah ba tey rek ñu ngi ci seen rubrique ah les difficultés rencontrées tey ñu ñëwaat encore ñu ngi waat suñu beneen kër papa fas yéene la waxtaan ak moom moom tamit laaj ko yéen difficulté la ñuy jànkontré ñoom seen biir ah, papa ñu ngi leen nuyu. naa leen seen tur seen sant. mën noo xam tur beeg sant bi. waaw Assane Sow laa tudd. Assane Sow yow lan nga ci ci dëkk bi fii. man man day mm, maa ngi dëkk fii ci dëkk bi ci faat gi muy faat pël ah, dañu doon dañu doon béy taa jëkk léegi mbéy amatu ci nun léegi kana léegi amu bariwuñu li ñuy liggéey waw dëkk bi nag fi ñu léegi nun màgge nañu sunu njeboot lañu àndal fii ñoom ñooy dow ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy génn di ñëw ci nun nun mag lañu kon yi ñooy dem ñooy ñëw ñooy wuti ñooy ñëw donk yéen moom defatu leen dara mais yan jafe-jafe ngeen di jànkoonteel fii ci ci dëkk bi bari nañu jafe-jafe bi ñu jànkonteel ndax nun daanaka nun lu ñu am rek dañu fekk nun ñoo koy dawal sunu bopp ak xale yi xale yi xaw sonn lool ndax nun sunu njiit mi ñu am fii daanaka ñoom seenu bopp la ñu nekkal amuñu nun ci gëstu nun lu ñu am rek ñoo koy dowal sunu bopp ak xale yi te yi xaw sonn lool ci nun ndax dañu gën na ci ñëw te am na taa yoo xale yi xam nga taa yu wees yu mel ni nii dafa kaw a lool ci nun moo tax ah, ñu kaw sonn na ci ci dëkk ah, ci dëkk fi ñu toll léegi. waaw ndax mën nga ma lima rek ci jafe-jafe yi yenn yoo xamante ni marqué na la moo xam ci ndox mi moo xam courant bi ah, dundin gi yan moo leen ci gën a métti yan moo gën ban problème ngeen ci gën a am dëgg-dëgg. waaw lu ñu gën métti léegi mooy courant gi courant bi ah yàgg na lool yàgg nañu ko jooytu. ci sunu maire waaye amu ci nun toppatoo wax dégg yàlla ci courant yi. kon bi daal moom liggéeyam mën naa wax ni defu ci dara daal. deful ci dara ci nun ci sunu dëkk fii ci sunu sunu côté amuñu benn ndimbal bi mu def ci nun gisuñu ko nun te jooy jooytu nañu ba sonn amuñu ci benn mal yërmande ci nun daal. dégg ngeen ko ah, yéen ko déggandoo ki nga xamante si moom mooy monsieur le maire bi nekk fii. Ah, ñu koy ñu koy ñu koy tàllal sunu loxo rek. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla mu gëstuwaat ñi nga xamante si ñoom ñooy population bu Fass ngoom bàyyi leen ci xel parce que lii tamit neexul nekk ak say say say nit nekk ci dëkk jiite fa te mënoo leen a satisfaire donc amul solo balaa càak nga joxe post bi keneen jël ko sax boo jéem a def lu raw li nga def kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax monsieur le maire ñu ngi lay tàllal suñu loxo encore une fois di la wax ni nga gëstu sa population parce que sonn nan boo déggee daanaka def

di leen xamal ni ñun daal suñu gox sunu koñ fi dëkk nii wax dëgg sonn nañu sonn nañu lool ci kuuraat ñu ngi koy jooytu fu ne fu ne nag jooytu nañu ko dem nañu gudd dem nañu bëccëg waaye maire bi daal amul ndimbal ci benn ndimbal ci ñun waaw xale yi sonn nañu xale yi dow nañu ba macha allah kon xamatul na mel nii. jërëjëf xale yi daw nañ ba macha allah sonn nañ kon su ko defee rek encore une fois Alioune Sarr bon. tàllal nañ la loxo population Fass Ngom gépp tàllal nañ la loxo ngir ngeen gestu leen lépp loo ci mën a jàpp rek nga jàpp ko ci ah kon jërëjëf su ko defee rek ñu daal di dugg doxantuwaat xoolaat lan la ñuy amaat rek. Hmm?